mais dañu gis ne ñun suñu état africain yi nu mu tëddee nga xam ne à chaque fois rek justice bi dafay nekk euh, benn bras armé de l'exécutif les magistrats wala yéen ñiy yëngu ci wàllum justice est-ce que amu leen ay yoo xam ne di mën a contraindre euh, ces ces politiciens ou bien ces yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllum état wala sax président yeeg wala ministre ngir rek ñu gën a mën a rek détaché wu ci mbir boobu lan la magistrat yi wala sax euh, avocat yi mun a def ngir pousser à ce que l'exécutif génn carrément si gestion affaire euh, justice. li ñu mën a def mooy li Souleymane Téliko di def nii. kese rek amul benn loi bu leen ko may. non parce que ils sont soumis à l'obligation de réserve donc am na lu bëri mënuñu ko def moo tax d'ailleurs day feeñ ci sa te tey jii nii ñoom bu ñu. man li man par exemple euh, li may def nii moom laa mën je suis enseignant chercheur mm-hmm. à part la faculté damay génn di éclairer wala parfois certaines questions pour essayer tout simplement d'apporter ma contribution mm-hmm. mais donc nga gis ni ñoom banqaas bi ñu am pour mu mën a bu rentrée solennelle des cours et tribunaux rentrée solennelle des cours et tribunaux cela fait deux ans le président de la République qu'est-ce qu'il avait dit je suis ouvert à tout à toute proposition mm-hmm. boobu léegi amul benn réforme quasiment pour dire UMS day def ay lël def na fi lël ak garde de so ak procu ancien procureur euh, CREI yi sax ba ñu wax. qui s'est mal terminé. oui gis nga na mu mujjee. Mm-hmm. gis nga na mu mujjee parce que wax ja bi bi mu génnee wax muy kii eh, wax ji dañu ministre ba dafa génn ni non li mu wax du loolu. Mm-hmm. te pourtant son point de vue rek la doon joxe. Mm-hmm. kon da ngay gis nit dañu bëgg benn immobilisme wala nit ñi parfois la justice et est statique chez nous alors que la justice. parfois elle doit être dynamique am na yoo xamante ne ay dynamique nag ñoo koy indi pour mën a changer moo tax li ma la wax sànq le président Macky Sall bi ñu koy xelal ni ko defal les référés ma ni c'est l'une des réformes les plus fécondes mais yooyu réforme mais man mënu ma ko bañ a magnifier mm-hmm. te loolu noonu c'est à mettre à son crédit mm-hmm. mais tey jii nii tey dangay gis ni en réalité boo gisee justice Sénégal ni muy doxee da ngay xool ne dafa sooxe dafay mel ni donc loolu lañ lay wax dañ la naan la justice est le genou de l'État woo donc am justice bu baax dañu ne ni ko donc tu as une démarche raide li ma jàpp mooy tey jii nii la magistrature l'avocature et les autres corps normalement devraient quand même donc parler de la justice parce que c'est un précédent dangereux mm-hmm. bu ñu jëlee un président de l'UMS bëgg ko bâillonner comme ça mm-hmm. mooy UMS tey jii nii ku ko képp ku ko jiite lan lañ lay wax amatul droit wax dara. Mhm. léegi bi tey nan lay amee boobu échange ak UMS naka lay mën a amee tey benn coopération ak UMS ça va être compliqué. si le ministre de la tutelle remporte l'affaire euh, sur euh, le juge Téliko moom lan lay risquer exactement le juge Téliko. alors vous savez que c'est des sanctions disciplinaires sanctions disciplinaires ñu prévoir parce que xam nga conseil supérieur de la magistrature comme dafa am wax bees bu ñëw. Mhm. xaw ko tëggaat. Mhm. donc mun na dem suspension. mun na dem ba radiation. radiation oui c'est une sanction radicale. donc dafa am sanction de premier degré. Mhm. blâme avertissement sanction de deuxième degré mun na doon donc euh, voilà euh, suspension donc euh, un moment pendant une durée précise voilà donc euh, radiation te loolu dafa garaaw moo tax tey jii nii xoolal est-ce que mus nga gis boobu ba tey ñu ne la. am na fonctionnaire yoo xamante ni faral nañu nguur gi di wax yoo xamante ni waruñu ko wax te dara fekku leen ci nee naa la sànq am na magistrat yoo xam ne dañu leen a détaché fa ñu ne ñuy def politique am mouvement loolu kenn waru ko sax xaar dañoo war a n'est-ce pas mettre en branle la machine pour que kooku bañ a defati loolu muy def soit na dem nekki un politicien mmh, wala mu continuer nekk magistrat mais bu ñu def nañ ko yokkal ma tànk dañ ko yokkal ndombal tànk. man nag ak de génération bi ñu ñu seetlu aussi au niveau de la magistrature. ah mais xam nga nag man du ma magistrat. donc magistrat lan moo ko wund magistrat yi aussi ñoom man man dama jàpp ni les magistrats du Sénégal ñoom tey jii nii ci ñoom am na ñuy génn di wax. Mhm. boo gisee ko mel ne le juge Dème donc euh, il est sorti am na ñeneen ak ñeneen. l'affaire bu nga xamante ni avec euh, donc euh, le président du cour d'appel très bien donc nga gis ni kon am na benn malaise bu am dans la justice dañ koy reconnaître c'est les faits mm-hmm. mais maintenant loolu dama jàpp ne su amee les autorités politiques ñoom ils ont en charge n'est-ce pas le fonctionnement régulier des institutions mm-hmm. dañu def de telle sorte que mu am harmonie ak sérénité et puis il la grève de justice aussi bu ñu ko fa donc loolu noonu damay jàpp ni ministre bi fi ne am na ci part de responsabilité parce que wax yi muy wax. depuis ba mu ñëwee ba tey. ma wax la ma beneen ma wax la beneen moom li muy reproché Souleymane Teliko mais moom nit fii taxal nañ ko ci lenn mu jël ni kooku deful dara day dem màkk day ki ministre war na waxee noonu te dara fekk ko ci. même l'affaire Cheikh Yérim. l'affaire Cheikh Yérim Seck aussi fii la génn aussi donc voilà dara fekk ko ci mu mel ni donc nous avons de la justice boo xamante ni nii donc jeune je ne sais pas nest pas sa démarche je la comprends pas mais c'est une démarche boo xamante ni war na ko xoolaat parce justice soo ko ŋànkee da koo xamante ni da nga war a tëddee njaaxanaay parce que li ñu la sas dafa bëri moom la ñu tuddee le ministère à problème mais nag soo xamee ni ay problème ngay gérer yow problème yooyu da ngay jéem mm, def ko euh, des solutions mais mënoo ñëw tey jii nii nga ci tegaat yeneen problème yu bees souvent de réhabilitation de Karim Wade ak kii di euh, Khalifa Sall seen ay euh, droits pour ñu mën a euh, dem vers les pré vers la présidentielle que Logique Téléco aussi souligné woon quelques incohérences wala quelques erreurs yu am si wàllum jugement bu xalifa Sall est-ce que yaakaar nga ni après bañ leen gracier war nañ mën a xoolaat seen mbir pour ñu mun a xool rek ñu leen amnistie pour ñu mën a ñëwaat. en tout cas li mu mën a wax mooy. cour de justice de la CEDEAO nee na woon Sénégal Karim bu ngeen ko jugé CREI yi mhm. di ngeen violer àq ak yelleefam privilège de juridiction la amoon Sénégal bañ lii infraction instantanée donc état bu Sénégal sax moom dafay violer charte yi nga xam ne CEDEAO da koo tëgg. mais bien sûr te Sénégal dafa bokk ci les pionniers. Mhm. les états qui tirent la CEDEAO vers le haut. ma yëgale ñu ne ñoom dañ ko yóbbu CREI yi jugé ko ñu procureur bi dafa waxoon ne nañu ko tëj ba pare. mu mm-hmm. perte droit civil ak politique am yépp mm-hmm. du loolu la waxoon. Mm-hmm. jugement baa ngi fii ba mu ñëwee juge ba topp ko ci loolu. juróom-benn at la ko daan waaye Karim Wade pertul woon ses droits civiques et politiques. maintenant boo demee nag ci article 3 de la constitution daf la naan tous les citoyens sénégalais âgés de 18 ans révolus sont électeurs et jouissant et jouissant de et jouissant dafa la naan jouissant de leurs droits civiques et politiques civils et politiques sont électeurs dans des conditions déterminées par la loi loolu mooy lan mooy boo amul gànt amoo gàllankoor mën ngaa nekk candidat comme mën nga nekk électeur Karim Wade mu am fi loo xamante ne d'ailleurs dafa waroon a mën a nekk candidat mm-hmm. mais bi ñu changé loi bi dañu ci yokk pièce bu bees mooy la carte d'électeur si la ñu changé article L57 mm-hmm. ne tout citoyen électeur ba nga xam ne Karim Wade da koy manqué benn pièce donc bi mu ñëwee conseil constitutionnel ni pièce boobu am ko mënta doon candidat mm-hmm. mais loi bi dafa ne bu fekkee yow dañu la condamné dañu la condamné ci yenn délit mënoo am carte électeur mais ñu ne bu fekkee ni dañu la condamné ci yenn délit yi aussi yoo xamante ni prévoir wuñ ko mais dañu ko généraliser rek bu boobaa bu juróomi at jotee nga purger sa peine. Mm-hmm. maanaam juróomi at boo paree mun ngaa dellu ci ci liste loolu mooy kaawam kon tey jii rien n'empêche à Karim Wade de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales beneen bi ci topp mooy beneen bi ci topp mooy mm-hmm. cette incapacité parce que du sax incapacité cette impossibilité de s'inscrire sur les listes électorales ne peut pas être permanente mm-hmm. pourquoi parce que déchéance amul c'est-à-dire que on lui a fait perdre des droits qu'il n'aurait jamais perdre mm-hmm. pourquoi parce que en réalité disposition yooyu nekk suñu code des disposition yoo xamante ni nii méngoowul ak constitution bu Sénégal mm-hmm. kii di Khalifa Ababacar Sall c'est la même chose mais man dama jàpp ne dara waru leen a mënoon tere ñu leen candidat boo liiree loi bi pourquoi parce que du moment que peine bi jeex forcément donc war nañu mun a ñëw delluwaat ci biir liste électorale yi léegi nag problème d' interprétation la am na ñu naan ay amnistie et cetera damay rappeler ni lii ñun dañ koo dem recopier ko ci France suñu code électoral bi L31 ak L32 France foofu sanctionné nañ ko fa ba ni woon conforme à la constitution bañ dindi ko léegi ñun def nañ ko fi mais bu ñu fàtte ni yooyu noonu nekk fi tey jii nii am na yeneen loi yoo xam ne dañ leen ni appliquer boo demee ci code pénal bi danga nga koy gis boo demee aussi ci constitution bi da koy gis lan la wundu mooy ñaar moo am soit nit dañuy nangu ni am na ay droits civils et politiques ñu appliquer ko wala da koo perte ñu bañ ko ko jox kii di Khalifa Ababacar Sall ak kii di Karim Wade pertuñu seeni droits civils et politiques ok euh, juste